aleykoum wa rahmatullah di dor di le président Fadilou Keita président de l'ADAM di Fadilou le président association l'association Yep. Yup. le président de RERA vice-président Renades doyen Djibril Wade euh, di nuyu jotaay bi yëpp ñu ñu ma àndal fii aussi ba fii euh, di am mbégte bu baax nag euh, ñoo fi teew pour wax mais aussi euh, comme ni ko DJ bi waxee sànq rek wala maître cérémonie bi man je vais prendre la parole en tant que président FENAFO tey jii parrain bi dama ko teg si loxo mon frère son xarit Lamine Diop donc aujourd'hui c'est lui le lui le parrain. donc il va parler au nom du parrain. Moi, euh, je vais parler en tant que président FENAFO. Euh, FENAFO bi euh, comme ni le savez, Moi le ko bi nga association Sénégal YEP. acteurs Sénégal YEP, dit di simbirum si mbirum xar bay donc FENAFO que une fédération qui a été mise en place par le ministère de l'élevage en 2011 euh, comme nous le ko la loi agro agro-pastorale de 2011 dafa indiquer éleveurs yi nous euh, ñu bokk lu ñuy def lu ñu la maanaam ñii di def xar ak bëy nañu ànd ñi di produire nañu ci filière ñii di def mbaam nañu ànd seen filière ñii di def fas ànd si seen filière ñii di def aviculture ànd si seen filière donc euh, ñu euh, d' abord y' a les associations yi nga xam ni dañuy yëngu si benn filière boobu à la suite de ces associations day am fédération bi nga xam ni mooy fédéré association yooyu parce que association yooyu suñ am nañ ku si nekk sa autonomie mais am na fu ñuy Fini dajé moy ci fédération bi waxtan bi mbirum filière bi pour xool filière bi mu jëmee kanam fédération bobu nak su démé bo si yàgg dinañ ko gëna a yaatal mu nekk lu ñu naan interprofession interprofession bobu nak day dépasser filière bi day dem ba nga xamni ni ñi nga xamni sax euh pour le moment c'est les éleveurs mais suñu démé bo si interprofession bi ñii di jaay aliment dañuy dugg ñii di jaay garab dugg ñii di jaay buum yeeg yooyu dañuy dugg ñi nga xam ni euh, dañuy redresser corps yi dañuy dugg euh, les communicateurs réseaux sociaux yeeg yooyu que vous êtes dañuy dugg donc tous les ñi nga xam ne képp kuy yëngu daal si mbir moomu da ngay dugg bu boobaa loolu lay la ñuy wax interprofessionnel euh, donc loolu su ma juumul tey jii benn filière moo atteindre gum niveau boobu la filière avicole tey aviculture avec l'IPAS ñoom dépassé nañu stade euh, euh, fédération léegi ñu ngi ñu interprofession euh, c'est l'occasion de saluer docteur Ba bi nga xam ni na secrétaire général interprofession boobu c'est un membre actif très actif de cette interprofession et c'est cette organisation-là qui leur a valu aujourd'hui, euh, si euh, récemment, Yegona, Amona comme quoi les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, ils étaient prêts à injecter plus de 5 milliards sur filière pour financer cette interprofession-là. Donc pour dire organisation, manko nek ben parce que c'est bien beau nous avons def association association quartier Barna, association commune Barna, association euh, département Barna. mais association yi lu muy bari bari du yak dara mais lu muy bari bari bëri dafa wara am fu ñu weer dañu wara ci si benn bopp Sénégal lu muy yatu yaatu ay région bari ay gouverneur bari ay député bari lepp benn bopp la ñëpp dañuy daje à la présidence président bi moy jité donc toutes les décisions se prennent au conseil des ministres élevage bi tamit la demain. Nous association euh, le ministère de l'élevage trace nous voie voie au moins tracel voie bi tracel nous voie bi si développement filière du ñu c'est bien beau de dire, oui, nous bolo, du bolo, mais il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes. c'est inadmissible que on, nous, nous, nous, que Sénégal, il y a plusieurs associations, on a fait un travail extraordinaire. On a créé une race qui n'existe, euh, de par ses mensurations, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Mais pas, on n'est pas, pas organisé. On a en face de nous le vol du bataille, mi nga xam ni def ay loi mais loi trop criminalisation trop mais lu gën suñu bi lu gën d'abord mooy ñu jàpp sàcc bi sàcc boo jàppul noo koy noo koy criminalisation c'est pas possible donc mais loolu il faut ñu nous nekk benn affaire donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, si on veut créer de grosses mutuelles, mais il faut que nous une force bi nga banque yu si on veut créer une usine même chose aujourd'hui il y a combien de foires qui s'organisent dans l'année il y a plus d'une trentaine de foires bu ci gëna millions si je parle du matériel logistique bu ci veut a logistique ci foires yi millions am na dépassé nañu 50 millions donc loolu yëpp tay ji waru nañu am suñu matériel bi nga xamni euh mun nañ ko louer suñu biir wala abalante suñu biir wala def lépp lépp ci biir ak leneen ak aujourd'hui le ladum est menacé le le le ne se vend plus la production du ladum augmente d'une manière exponentielle alors que tay ji les ventes chutent donc c'est très grave les ventes chutent très lourdement d'une manière extraordinaire alors que tu dit d'une manière extraordinaire nous continuons la production mais lolo, la jëm ci catastrophe la mais catastrophe dañ prévenir dañ wara xol naka def ba duñ fa egg naka du élargir marché pour élargir marché aussi mais il y a le minimum aujourd'hui le ladum ah, on le connaît. On le caractérise par les yeux, parce qu'on le reconnaît. On peut le distinguer des autres races. Si on tey jii laa dum dugal ko si biir pël-pël coggalu pël a de ci biir coggalu le da donc lolo, il faut nous matérialiser ko FENAFO mu il liggéey lolo, nous ñuy caractériser ah, ñu ngi liggéey caractérisation là on est euh, à presque 60 du travail. Euh, l'UDES des def les euh, après ce travail là il faut catégoriser parce que là quoi qu'on puisse dire c'est différentes catégories et le dem dina am xar koy millions mu jaay ko millions donc déjà catégorisation catégorisation il faut matérialiser sur le papier comme on l'a fait avec des races euh, euh, comme le sardi marocain et autres donc c'est un travail bien FENAFO mais FENAFO donc je profite de l'occasion pour vraiment lancer euh, vraiment inviter les, associations qui ne sont pas encore membres de la FENAFO nous nous liggéeyandoo nak en toute démocratie parce que tay di démocratie moy lan ñu ñuy tok fi ñu war a wax fu wara waxé wax liñu wara wax mais démocratie du yow nga am occasion tok ci table ronde fi nga wara waxé nga dem fenen di wax ci souf lolu yak la ça c'est pas de la démocratie donc nañu xol luñu wara war euh, euh, donc j'invite tout le monde manko nek ben.

et c'est à partir de ce moment là rek la mëna homologuer l'adum bi té l'adum bi tant que homologué wuñ ko tay on peut pas l'exporter. exporter suñu exporté wul euh, euh, laadum bi tay ji lool moy marché du yatu parce que actuellement si sous région bi rek la yem mais tay ji l'adum imaginez vous aujourd'hui le l'adum suñu ko homologué les brésiliens y' a y' a y' a y' a à peine 5 ans euh, tok nañ sen las Santa Inaïs bi dafa amone fièvre bu nga xamni ay table du du wër. Nous sommes des li consanguinité la changer nous bi dañuy indi mais Afrique du Sud Nous avons des centaines de milliers de têtes à des prix extraordinaires mais imaginez-vous bu vous des dafa vous bi mais vous vous des vous de ñun éleveur multimillionnaire donc tay niveau bobu la jëm donc ci baye xel bu euh, pour bañ a guddal rek loolu laa euh, bëggoon euh, wax encore une fois féliciter le président Fadilou et son équipe di la di jaajëfal si bi ñu jox bi si délégation bi fi ñëw yëpp di exposants yi les communicateurs ah, les journalistes, tout le monde. Donc, euh, et je vous souhaite une euh, belle fête.